rahmatullahi taala barakaatu yéen bokk jullit yëpp ñun bokk taalibe yëpp maa ngi leen di nuyu si euh, Cheikh Mamadou Mountakha ñoom Cheikh Mamadou Basir moo xam moo fi nekk Serigne Touba Xaadimu Rasuul di nuyu si turu njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp di wax nag ni dañoo am sunu sunu set boo xam ne ñu ngi ko jox Serigne Serigne moom sëñ Cheikhouna Mbacké mii dafa maanaam fan yëpp gisuñu ko mu war a toll ci ñetti at yu tofal noo ngi ñaan nag ku ci gis koo koy gis wala ngi wala dégg ci yenn euh, cagtal nga daal di koy yëgle yàlla dafa ne naa jokkoon na maama monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye euh, ba mu wax ne dafa nekk Linguère waaye insha allah bu ñu suba ci altine ji dana ci jokkoog commissariat police yi nekk ci Sénégal yëpp ngeen ñu def ci ay ay ay gëstu ba ci dellu si ko kookee nga xam ne moo moo ko téye rek bu fekkee dañ koo téye maa ngi koy xamal ne kon dañ na delloo ci suñu set bii setu Seex Moodu Faadal la sëñ Fallou nag sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa moo waxoon ne mu juba boromam te moom dafa dafa am ay ay ay ay ay ndombay tànk yu bari moom sëñ Mustafaa moom moo ndax Seex Moodu Mustafaa mu Seex Moodu Faadal mooy doon ma mooy jëkk di maamam Seex Moodu Faadal di maamam ji moom kon nag képp ku ci gis wala nga xam ci dara nañ ko daal fe feeñal ku di deful nag koo xam ne da koo téye te nangu ko feeñal nag sëñ Fallou mi nga xam sëñ Tuubaa daa wax ni mu jubóog mu jubóog boromam danañ ñaan sëñ Fallou mi jubóog boromam sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa moo ci moo ko wax ci njaareem kookee ku bu ko bu ko ci ci lu mu gën a gaawee la koy dal na ko daal di dal na ko daal di te itam nag du ko du ko topp ci àddina ak àllaaxira lay lay yemal lay yem lay la koy la koy topp loolu nag bala bala ci àgg. na jël euh, sëñ Moussa moom andi ko fii ci Touba di ko andi ko na gën a gaawe tax loolu mooy liy baax si moom te moo koy jig euh, maa ngi sant ñëpp di wax suñ mbokki taalibe yi yaakaar sëñ Touba ñëpp ñun ñëpp nu jóg ci euh, fexe daal bañ bañ andi ko ci na mu a gaawe te te ko dara wokk maa ngi sàkku ci ñëpp rek tey di ci am yaakaar ju wóor joo xam naa ko ndax sëñ Touba Xaadimu Mustafaa waxoon na ko maamam Cheikh Modou Fadal daf ko waxoon ni ko eh, damaa bëgg ngeen xam ne man ak taalibe rek mu ñor koo xam ne kii am am nga taalibe mooy si lépp ku ko ku ko yow dara ba mu ko defee Cheikh Cheikh naa moom Moustapha eh, Al Karim ak moom Cheikh Modou Fadal ak so sëñ roxo Roxoy Bousso ak ma Massamba eh, ñu ñëw fi moom mën leen damaa bëgg ngeen xam doo ma bàyyi kenn. dooma dooma ma Cheikh Moussa ko moom ak Cheikh Modou Fadal dooma na jaayee kenn sëñ ma doxi Moussa ko moom dooma mag kenn sëñ Massamba sëñ Massamba Mbacké ko moom kon nag kii sëtu sëñ Fallu la nañ ko feeñal ci lam gën a gaawe bala ci bala ci bu ci bu ci dara bu ci dara xew nag maa ngi ci am yaakaar ju wóor joo ni ne wóor naa ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yoo xam ne lépp moo ko jaboote moo waral mu am woyof gu toll ni eh, def déclaration xam ne njabootuk Seex Muhammadul Moustapha mooy njabootam kon ñu ngi ko ci sant ci turu Serigne Mourtada ak njaboot gépp xam ne lii de bu Serigne Modou nekkoon ci kaw suuf it mënu koo weesu kon Serigne Abdou ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal li nga war a def lépp def nga ko gis nañu te ji nga ko def xale bi nag eh, Serigne Mourtada tuuti mbàkkee ku jur tuuti soxna muslee ku jur moom sëñ fàllu làndang di mbokkum ñépp sëriñ seexuna soxna cubbaloo moo ko jur mu jiitu ci kër sëriñ murtada xale bi taxoon ko lool nekk ci wetam ñeenti atam matul kon li sëñ Abdou Fatah wax loolu rek lañ koy jottale ak cantam te leeral ne keroog bi ñu ko jëlee ak léegi mu ngi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci tey kon li sëriñ bi waxoon doy na njaboot gépp jóg nañu kenn ku yaa ngi def sa yitte waaye nag da di sëriñ ab Fatah moo kawe sunu yitte luñ ci war a def def na ko luñ ci war a ne wax wax na ko waxaale na ko jaboot gépp biñ ko gëjee gis sag léegi daal tey la ci fukki fan ak juróom-ñeent le 21 la woon lu jiitu élection yi waxtu timis lañ ko jël ci lañ ko noppee gis ba léegi amuñu ci benn xibaar nag loolu mooy ëlëm ay way juróom ëlëm ñëpp loolu moo waral sëñ Abdou Fatah yëkkati kàddoom ab sëtëma ndax seexunaa mi ko jur sëñ Murtala moom sëñ bu sa jëng ko jur moom sëñ Fàllu tuuti Mbàkke mi sëriñ Baara moom sëñ Moodu bu sa jëng ma ko jur eh, ak Muslim Mbàkke moom sëñ Fàllu London loolu kon kii ñu jël nii la demee ci bokk gi ñu ngi ci defi gëstu nag def nañ déclaration police gendarmerie ba bii sëriñ Abdou woo ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo moo ban ca jaaxle biñ demee ci moom dafa woo ministre bi ministre bi nee na dana jox ay ndigal ñi muy lif ñëpp ñu ànd ci wër boobu loolu moo waral bokk yëpp jógandoo ñu sant loo di di ay maamam ñu sant bu saak ñëpp jógandoo nañ ñëpp a ngi ci def seen kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy déclaration bi sëñ bi doon yëkkati kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.